Diga jalnya a moza ko bae gana zala mai mi na gerere

li ci doye demandé baboye bapona barana segur yom li ci doye demandé baboye bapona barana segur yom Bakar Papto ya papto e ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaat kontante ak mbégte di tasewaat ak yéen comme ni ñu koy defee saa su nekk bu lutte simple amee di lutte sans frappe tey mbokk yi ñu ngi ci Fatick ci Njaanjaay Fatick ci tournoi de lutte bi nga xamante ne nii tournoi de lutte du ko yomb ëpp solo. ci dayo waaye aussi ci contenu ndax ci fàttali rek mbokk yi barki démb ba léegi fii ci Njaajaay Fatick ci arène Sidi Ndour Njaay combat yaa ngi daw di neex animation di daw di neex lépp luy aada ak cosaan ñu koy gis ci arène bile dellu si nag tey gaaw wala tey samedi yemboog 29 février 2020 ñu nekk ci final bi gannaaw ba ñu bëree arxames passé arxames passé ñu ngi doon bëree loolee di raw gàddu démb la woon tànk tey la final bi final tànk yi ak luur bi tey la mbokk yi ñu nekk ci première demi final tànk yi demi final baa nekk noonu attention jël na tànk ba. da koy gunge ba ko déedéet génn na saaku ya non dara amul wala am na lu am arbitre day ñëw consulter ses juges fële ca am nañ beneen demi-finale bi voilà dem na finale El Hadj Ndiaye dem na finale voilà El Hadj moo dem noonu finale ñu ngi nii nag ci deuxième demi-finale bi deuxième demi-finale ba nekk noonu muy tànk yi ñu gën koo ci poids léger ñaari mbër ku ci daan dangay fekk élage ca final ba ndeysaan mu nekk drapeau Cheikh Kanté drapeau Cheikh Kanté moom la ñu teg fii tey ci Njaañay Fatick koo kee ngeen di dégg ci suuf mooy doomu yaa maye ndeb di Agnès nga xam ne ndeysaan ni ko way juróom bu jigéen ba daan defe noonu la koy continuer di ko defe ñu koy ñaanal sunu yaay maye ndeb yàlla yàggal taxawaayam wëral ay cëram ndeysaan ndax bari na ay mag yoo xam ne nii ci làmb boo leen laaja ci yaa maye ñu ne la cosaan lay way lan la arbitre wax voilà c'est terminé il paraît c'est il paraît voilà arbitre day jox victoire njool mi day jox victoire muy final bi ndeysaan voilà c'est terminé final ba moo ca des ñu daal nag dugg ci luur yi jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi ci final raw gàddu bi war dox ci diggante Omar Diouf féete ñu càmmoñ ngemboo ngemb lu weex ak Amadou Korka Diallo féete ñu ndi joor Amadou Korka nag moom mooy Kaaw Gourdin moo fi mu bëri ak deux loolu leer na jaajëf Bukar ndeysaan Amadou Korka Diallo ñu gën koo xam ci kaw Gourdin ak Omar Diouf. Kaaw Gourdin Omar Diouf eh, eh, Kaaw faaxat na ko moom mooy. Kaw Gourdin moo leen woon ginnaaw wala moo yore ngemb ngemb lu bële Omar Diouf moo féetee ndeyjoor moo yore ngemb lu weex li Kaw Gourdin Omar Diouf final raw gadu ñoom ñaari ñëpp Dakar lañ jóge Omar daw na jël Kaaw bañ na Kaaw jëm na ko mbotti rëpp nañ jógaat Omar ak Kaw Gourdin Omar raw gadu Omar Kaw Gourdin kaw Gourdin moo leen xaw a woon Omar moo yore ngemb lu weex li seen combat bi yàgg na tamit Omar am na ngemb waaye kaw jàppul fu dëgër kaw Gourdin temps yële moo doon bëre ak 2 Giga 2 Giga daan ko waaye gis ngeen ko tey mu ngi visé àll bi di compétir waaw lii laa nangu mbër compétir mbër bëre kaw tël na ko mu mooy daw na jël ko jël na Omar. jëm na ko génne kaw gourdin Omar kaw dina ko génne saako yi kaw gourdin Omar final raw gaddu kaw gourdin ak Omar te ñoom ñaar liñ bëre maanaam ñi ne kon daan si kaw gourdin daan ko kaw gourdin daan Omar kaw gourdin daan Omar. Ndeysaan arbitre bi sifflé na lii nag mbokk yi moom mooy final léger bi muy tànk comme ni nu koy waxe waxee ndeysaan diggante Elas Ndiaye ngemboo ngemb lu won ñu càmmoñ ak Géant bu Bargny ngemboo ngemb lu weex li won ñu ndi joor mu ngi noonu diggante Géant bu Bargny ak Elas Ndiaye attention Elas Ndiaye jël na benn loxo càmmoñ ba jaarale ko ca ndigg la jàpp ngemb li ba mu dëgër ndengeñ ko nag teg ci bàyyiwu ko mu liggéey mais Géant bu Bargny dafa mat sëkk mbër gis nga ko xëccoo ba ca suuf la xëccoo loxo ya ca suuf loxo ba mu jàppoon ca devantiru ngemb ba moom général walla moom Géant bu Bargny tàqar ñi na ko ba mu set waaye delloo na fa loxoom moom El Hadj jëm na mboot kal na ko jël na tànk ba fan la jëm ak moom El Hadj nga bëgg a def saay dafa njool arbitre na defar ngemb li waay na kal na ko da koy kal da koy kal jàpp na ko ba mu dëgër e sukkar bi na ko laa ilaaha illallaah géant bu barñi daan na ko jël bu amul benn werante ey eh, waay lii lan nii waaw asalaamaaleykum mbokk wasaare ah, ñoo ngi ak géant géant nuyu nañ la waaw fay nañ la Cheikh waa Lac Rose TV ñu leen di fay bu baax waaw. maanaam nga ñëw tey Ndiaye euh, Ndiaye Fatick fi jël final bi lan la lool lan la lay def. ah ñun miin nañ final <laughs> waaw miin nañ final moom da dañuy final rek xam nga di ñaan yàlla mu continuer bañ a arrêté quoi. di sant waa Bargny nag xam nga Géant nu mel rek waa Bargny la. <laughs> mais est que du Géant dafa dafa poids say doole. non du loolu sax ñoom ñoo mag El Hadj bi bi ma koy seetaan boo maa ngi ëppoo si gaalu Kanaari quoi waaw bi ma seetaan muy si gaalu Kanaari moo laawoon waaw moo mag fuuf barki yàlla. léegi looy wax sa supporter yi nga xam. ah gars yi nañu ñëw rek may jàpp gars yi di dóor xam maa leen man maa leen daax bëre maa leen ëpp yàlla def na lool. bilaahi. ale rafet na looy wax ci Lac Rose TV ak Wassare. Lac Rose TV sa kaw sa kanam. sa kaw sa kanam laf cat yaa na bu leen cat dugg. jaajëf rafet no korja ngane bu baye dan dan we ñu kere e ko magani madira do la e singo yo maine aro for amore e ko matira dodo yesi bajo maine aro foramore e gorana yule jabangali ke korbo ine jamar go penda bange gorana yule jabangali ke korbo ine jamar go penda bange

gati o oto cambure la zumba gorwe la la fanjare gorte ninge gati o oto cambure la zumba gorwe la la fanjare gorte ninge gati o oto cambure jërëjëf mbokk yi boobu ba léegi ñu ngi leen di bàyyi ngeen di déglu bàkk ndax nag ci la bokk Agnès moo nekk noonu moo doon woy woy yu yi sànq loolu ngeen doon dégg muy daw ci suuf boobee ba léegi Agnès a doomu yaa maye ndem yu bari jàll nañ fi nag Doudou Sané bëri na fi bërewaat ordinateur bëri na fi bii mooy deuxième combat am ngel jonn bëri na fi bii mooy deuxième combat mu ngi ne le ngel jonn la biram bi sin fii ordinateur la ak Ousmane Senghor Ousmane Seras Ousmane ak ordinateur usmaan Seras ak ordinateur ndeysaan Ousmane Seras ak ordinateur fële la ak Biram Mbisine ordinateur mi kii nekkatul pencam 4 nekkatul pencam 3 nekkatul ICOR 3 nekkatul ICOR 5 ordinateur bii léegi MacBook la waaw. day jël loxo yi moom ordinateur bal ko ca ginnaaw mel ni ku koy takk yootu ñaari ndomboy ngembal yi ne ca nuus jàpp ba mu dëgër génnewaat benn loxo ba loxo droite ba lay jàpp ca devanture ba génne loxo gauche bi waaw loolu règle la ndeysaan na ko tëral ko waaw loolu règle làmb la lan la dafa gaañu oh gaañu na de. arbitre sifflé waat na génn seen diggante ndeysaan muy ngel jon ak biram bi siin ngel jon moo ñu féetee càmmoñ ngemboo ngemb lu ñuul li biram bi siin moo ñu xaw a wan ginnaaw lamba ngoog adversaire u ba léegi moo nekk ca diggi géew ba ngel jël na ko waxoon naa la ko de de surveiller si tànk yi biram bisin bisin génn nga am nga troisième avertissement et c'est terminé puisqu'il a trois avertissements kay c'est terminé Normalement, c'est terminé. Première quart de finale baa ngi noonu Pakala Ngok. Ambulance moom it ngi noonu ci digg géew bi. Eh Pakala bi sori na de. Yee Pakala est-ce que di ci génn. Eh xale bi sàccoon na la. sàccoon na la àgg la fu sori. toog da ngay toog da ngay toog da ngay toog nangul. ay bi quart de finale tey bi quart de finale diggante ambulance ak Doudou Sané. arbitre sifflé na deuxième quart de finale ak Doudou Sané ay lii kan moo koy lijjanti. bu ambulance jàllee njaga doole jàll ngel jonn jàll ñu fekk fa pakala eh, loolu njar lay doon. en tout cas dinañ amay demi-finale yu neex Ndiaga Dolé jàll na daan na la daan na la fii nii Doudou Sané la ak ambulance Doudou Sané wër na ambulance doom daan na ko eh. Doudou Sané wër na ko ndombo yëkkati ba ca kaw ci suuf doole doxul jàmm keenam fi Ndiaga Dolé xool ko dalay daw bu la foofa toj mbootu colal mbootu colal mbootu colal mbootu colal eh, daan na ko jaay na ko doole daan ko jaay na ko doole daan ko ordinateur la noom ak ndax ay ndaanaan lañ ordinateur liy nelaw ci ngel jonn xam na ko attention ngel la nga def ordi jël na la du la ko may du la ko baal jël na la dangay rëcc rëcc na day génn ca biti déedéet du ko nangu da koy diriwaat jëlaat na tànk ba arbitre lu mu bëgg arbitre bàyyil ñu bëre arbitre bàyyil ñu bëre ngel day rasu rek génnaat ci ordinateur jëlaat na tànk ba mu nga ca suuf loolu wóorut ordinateur jël na ko da koy dëj ordinateur na ko da koy dëj ordinateur dëj na ko daan na ko eh. ordinateur dëj na ko daan na ko waa lii lan la nii lii lan la voilà première demi final mu ngi noonu diggante Pakala bu Mbour ak Ndiaga Dolé première demi-finale baa ngoog diggante Ndiaga Dolé ak Pakala bu Mbour demi-finale diggante Doudou Sané la ak ordinateur MacBook loolu la gole yii gone yii ku leen mooy tuul buñ la doole rek nga am problème buñ lëppul doole it buñ la jekkoo rek ci biir làmb ji nga am problème ndeysaan Doudou jël na dara eh eh eh eh Pakala daan na Ndiaga Dolé Pakala en finale Pakala daan na Ndiaga Dolé. kan mooy fekki Pakala en finale. point d' interrogation waaye question boobu léegi di ngeen am réponse bi puisque arbitre bi mu ngi waaj a sifflé ci diggante Doudou Sané ak ordinateur muy deuxième demi-finale bi nga xam ne bu ñu ci jógee rek daal di xam kan ak kan ñooy finalu fu mu fi toll nii nag Pakala moom moom jël na ticket ticket qualification leer na Pakala Mbour. validé na ticket qualification mu des ordinateur ak Doudou Sané Doudou jël na tànk ordinateur Doudou jël na tànk ordinateur ordinateur rëcc na Doudou eh, ko Doudou daan ordinateur Doudou daan ordinateur nee na daan naa ko ñetti yoon nee na daan naa ko ñetti yoon. xool xaj. eh. waa Doudou Sané. eh yaa sama loxo si am saa xool. mayee koy mayee koy. maye maye maye menu mosangat kay alma maaf o mosano maaf e sax o jang le 24 pe passé da sarte festival kudaj ya ge ano wa tant que koy kam xiju mi ñot no xa e récupération eh, jaay fay jaay bu tek ni pagala yaay yaay Fatick 2 millions nga waa ba rek ki nga xamante mooy Doudou Sané ci final bi lan nga ciy wax waaw di ñaan yàlla may ma ndam rek ndax compétition la woon mbëri bëri woon nañu maax moom rek ñoo si des. waaw mbëri bëri nañ. ngay bëre moom muy bëre. ku muy sa chance rek yàlla na nga ko jël. mais maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma ndam quoi. ndeysaan Fatick la woon jaajëf ak wasaare lamb wasaare lamb jaajëf lamb jaajëf wasaare. ayca Doudou Joof yow rek li ko wër. waaw ça normal. tey de nga ñëw. waaw gis nga. di tër ponkal rek. waaw gis nga sant borom bi bu baax a baax. daa mel ni bëre nga andi ah, da nga nekkoon si ay tolof tolof quoi. mais lamb noonu la. waaw gis nga moo tax ñuy jéem rek. ku nekk day waaj ak i mbokam rek ñëw wut si. waaw gis nga. ëpp li ñëwul waaw gis nga noonu la fa ko quoi. mais naka lamb ji lan lay yëg jamono ji nga war a final. non sant borom bi bu baax a baax. ñun moom ay taalibe Serigne Fallou la ñëw dañu mus a xaddi. grand Adama ñaan mu ngi sibile rek. waaw non kooku moom daa borom baax la quoi kooku ama fayam billahi. donc Seexul Xadim kooku daf maa yàgg a taxawu. billahi dañoo yàgg trop. looy wax waa Diofior. kontaan si ñoom rek di leen jaajëfal saa su ne di ñaanal jàmm. bonne chance. waaw ndeysaan mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb ñu leen di fàttali rek ndax fàttali du yàq ñu ngi ci arène Ngor Site Ndour bu Njaanjaay fatik ci gala bi nga xam ne ni waa comité de gestion bu arène Biram Tening ñoom ñooñu fi woo premier wala drapeau drapeau Cheikh Kanté moom la ñuy amal fi mu nekk làmb joo xam ne depuis le 27 la ñu ko commencé ca raw gàddu ba le 28 ca tànk ya le 29 tey ci poids lourd yi ñu am fi nag ñetti final raw gàddu bi joué nañ seen final ba pare lese bi bëri nañ seen final ba pare lourd bee nekk noonu diggante Doudou Sané la ak Pakala ñaari mbër yi dañoo tollale ay avertissement ku ci nekk am nga deux temps bi jeex arbitre bi may leen prolongation pour xam ba xam ndax nay kenn kii day am avertissement lamb ji jeex walla dañuy bëre lamb ji jeex arbitre sifflé na génn seen diggante rek Doudou Sané yéeg ci kawam Pakala laa ngi koy jéem a ëñ Doudou Sané xar na ko Pakala oh, dafa diis Doudou xar na ko sànq mais pakal dafa diis ndeysaan ñu ngay bëre Doudou Sané da ngaa nga te defoo dara dañ lay avertir nga ñàkk làmb ji dañ lay avertir nga ñàkk làmb ji Doudou Sané lii koy tere da koy tere ñàkk nga sa làmb Doudou Sané boo deful action di nga ñàkk sa làmb Doudou Sané ak Pakala daan defoo dara loolu arbitre da koy bañ e pakala boo ko joxee wet gone gi da koy lekk ba mu jeex wër la ndombo def la nam def assurance mbër bu la tollee fii li muy liggéey ngay dindi mais doo ko bàyyi muy gën di liggéey am na ñaari loxo ci ngemb ba pare ndengeñ la empêché la nga jàpp boo jàppee defee rotation jàpp bi dañ bu yëlboo jàpp bi dañ donc mieux vaut bu jàppee ñaari loxo yi yow nga jàpp benn loxo sa beneen loxo bi liggéeyu dara jéem a la tekki fi mu jàpp waaw jéem a tekki fi mu jàpp loolu moo gën waaw kay Doudou Sané loolu laa d'accord Doudou Sané Pakala eh, Doudou Sané jëm na ko wéyale waaye Pakala wéyut tey bu doon man ak jiili bu ma ko wéyalee wéyut rek man ma wéy attention Pakala bàyyi na benn loxo mu ngay liggéey waaw jàpp na ca téere tànk ba jàpp na Pakala Doudou Sane da lay takk Doudou Sane da lay takk Doudou Sane samp na benn loxo ci Pakala mboot na ko Pakala mboot na Doudou Sane daan na ko Asio Kor Njuuge e doxaneem na maya xa njome e jogo cirol Senghor waagu lamine e doxaneem na maya xa njome e jogo cirol Senghor waagu lamine e doxaneem dem na ma yaxa njome jogo cirol Senghor wa Gulamine e doxa dem na ma yaxa njome jogo cirol Senghor wa Gulamine